gis naa ne ngeen di jàppale malade ndax su vidéo bi dee dugg day metti mais bu defee vingt 24 heures rek malade bi def may woone ma fa leen ñi ngi may jàppale moo tax ko ku santul nit du sant yàlla jër ngeen jëf yàlla mi mën a fay yàlla yàlla fay leen te taxaw leen di gërëm tam diaspora bi ndax tam diaspora bi tam liggéey na ci émission bi liggéey bu am solo boo xam ne tey ñu ngi dimbali malade yi ndax ku ne xam ne ne àll dafa metti waaye li leen yàlla wërsëgale ñu ngi koy partagé ak ñi nekk Sénégal te tëdd ci lal hôpital yi ak ñi tëdd ci biir kër yi ak ñi néew doole kon mboolem kuy doomu aadama ko ne ci diaspora bi rek muy sénégalais muy gambien lu mu a doon rek maa ngi lay sant di la gërëm di ñaan yàlla taxaw la taaf defal leen jàmm te may leen xéewal ba ngeen mën a ñibbi ñibbisiwaat fii ci réew mi muy ñëpp rek di ci nuyu itam groupe yi muy dakaar ba Social and taxaw ñu wérati ñoom sëñ Jili Ndiaye sëñ Mamour sëñ Xaadim Sarr soxna Sungom soxna Alima di ci liggéey liggéey am solo di nuyu madame Coulibaly soxna Fatou ah, soxna Aji soxna Alima. macha allah ak Dakar ba social bu Amérique ñoom ñëpp di ñaan tam soxna seene bu mu nekk Amérique suñu borom fëgg boppam tamit jiite woon Dakar ba social bu Amérique bi xaw a tëdd ñu ngi ñaan yàlla fëgg boppam di gërëm suma rakk Mouhamed Amar ak Girif Sugu ak Xaadim gaa yëpp di ñaan daal yàlla defal leen tawféex tey nag ñu ñëwaat fii ci yëmbal fekk fi suñu frère boo xam ne dafa feebar amee feebar bi nga xam ne moom mooy jalis di def ñetti séance ci semaine bi muy lu métti loo xam ne ah, yaakaar naa ne euh, miin ngeen ci tournage yi ma koy def. Euh, di ko jéggalu nag bi mu ma dalee woo yàgg na waaye yitte yi mooy nekk sama bopp ak bagage ak ak liggéey bi ba léeg-léeg euh, euh, nit sax mën na jàpp ni dama ko xaw a sàggane fekk du loolu lii dama toogu ma maa ngi daw rek ci yitte jaamu yàlla yi nga xam ne moom moom suñu borom dénk di ñaan yàlla defal ko tawféex nag ndax bëgg na daal bëgg naa daal ngeen jàpp ci ndax jalis la te jalis feebar la boo xam ne dafa laaj ay moyens mu nekkoon hôpital nag amul woon accès pour fekk ko ci hôpital bi mais bi mu génnee rek ñu profité woon nañ fi daw ñëw. defal ko vidéo bi pour nit ñi mën koo jàppale. bu baax maa ngi lay fay Fadel. la. Ndongo Thiaw. Ndongo ñaataat nga am. man 35 ans. ban feebar la. feebaru jalis. depuis kañ. depuis 4 mois. Ndongo feebar bi mu lay dal yan signe la def ci yow. waaw feebar bi may dal daf ma miir ma daanu ñu yóbbu ma hôpital Tubaatul ma fanaan fa xëy ba ñu ne ma tension la quoi. après ci lañu bàyyi ma ñibbisi bi ma ñibbisee bi ma demee mu daanelaat ma mais daaneel mujj moom bi ñu tabaski ba pare ci la ma tëral ma ñu entré xombal bi ñu ma entré xombal euh, ba am fa quatre jours ci la médecin bi xamal ne ma carrément sa rein bi moo doxul daal dañ ma ne léegi nañ arrêté ndox bi ñu lay samp ak yooyu parce que ku ku war a génne waratoo dugal ma nit ma d'accord loolu ñu bindal ma kayit pour ma ñëw hôpital Fann bi ñu bindalee kayit bi ma ñëwee Fann waa Fann waa Fann ñoom amuñu machine boobu ñu yebal ñu dalal jàmm bala camp bi sama rak bi ne nañ la yóbbu dalal jàmm bi ma demee dalal jàmm def naa fa dix-huit jour ñoom wax dëgg ay jàmbaar lañu paj ma cher na metti na lool. mais wax dégg ay jàmbaar lañu bi ma génnee ma ñëw mu teralaat ma bi mu mujjee teral nag wax dégg métti na lool ndax mënaloo sama bopp dara mënuma taxaw mënuma tëdd mënuma ko woon. médecin ma a gis ma toog nii dëju comme nii dafa yuuxu daw leen ndongo toog na wala en azim paj ma nag wax dëgg métti na lool dañoo mujj def jalis quotidienne. dialyse quotidienne mooy chaque jour da ngay dem jalis chaque jour dañ ma doon defal dialyse avant may génn ma fa mujjee entraîné am naa fa un mois douze jours weer ak fukki fan ak ñaar ci laa ci lañ ma mujjee génne nag léegi ñu yebal ma ci privé yi pour ma fay def jalis te wax dëgg yàlla privé yi métti na métti koo xamante ne nii mënoon ma ko sama bopp samay mbokk ak samay xarit ñëpp ci jàpp. ay jàmbaar lañ ci it wax dëgg yàlla mais fu métti yem rek ak na fa métti na lool moo tax ma doon sakkoon dimbal ci doomu aadama yi ku ma ci mën a dimbali rek nga dimbali ma ci te yàlla tax. Ah, d'accord ku la ci mën a dimbali nga dimbali ci yàlla tax mais ñaata science ngay def actuellement. instant bi trois sciences lay def. fan ngay defee science dialyse. Thiès. kon euh, semaine bi di nga ciy dakaar ñetti yoon dem Thiès. dem Thiès waaw. boo demee da ngay fay wala public la. damay fay privé la waaw. muy coofe-jafe ak coono yoo xam ne yaa ngi koy dund nooy jànkoonteeg feebar parce que trois fois dans la semaine Thiès Dakar ci koo xam ne amul moyen nan lay noonu nooy jànkoonte. na que sama benn jërbaatu baay fois moo ñuy àll oto métti na lool nag boo demee pour nga dox yéeg ci kaw rek problème lay doon te tànk yi day métti. day métti carrément ba doo mën a dox ndax ndox bi mooy tax fi mu toll nii ma wax yow nii mënuma dox. Mm-hmm. metti na fi mu ne nii mënut a dox muy loo xam ne euh, jëlee ko xam impact bi muy def ci nit ku feebar dafa métti rawatina bu fekkee sa doole bariwul euh, nga war a def trois fois jóge Dakar aborto dem Thiès boo demee da ngay fay def kon bu ko defee lenti dina ko def mercredi ba vendredi ak vendredi muy trois fois yoo xam ne même bu fekkoon da nga am ay moyens di ko def sax dafay métti rawatina boo amul ay moyens may gën a lancer en appel rek ci ci ci ci état wax naa ak bonne volonté yi ndax bon volonté yi ñi ngi dimbali malaati mais état nañ gën a bàyyi xel euh, malaatu jalise yi malaatu jalise yi ñi ngi souffrir ay problèmes yoo xam ne hmm, bu fekkee doo leen fréquenter doo mën nga ko bañ a xam dafa métti. bu njëkk jalis boo ko déggeen balaa nga koo déggaat da ngay toog lu yàgg wala ay mag la daan daal léegi ay jeunes 35 ans nga am doo xam lekk gi la doo xam lan la mais li ma ko jàppee mooy sunu boroom la ndax nit mën nay lekk sax lu baax lu gën ci moom ba pare tawat ndax tawat jaamu yàlla rek buy dox ñu yónni ko muy dox mission mais leen ngay waxaat euh, bon volonté état ñu gën a dimbali jëlise yi ndax jëlise yaa ngi daj ay problème yoo xam ne ñoom rek ñoo koy yëg. war nañoo séentu bu baax ndax feebar bi métti na bëri na bëri na bëri na koo xamante ni ñi ciy ñàkk seen bakkan chaque jour dafa bëri surtout ma mag ñi kon nag euh, bu dalee xale xale nga xam ne dara jomb ko war nañ ko mën a taxaw ba mu wër di dox ay soxlaam loolu daal xam naa ne buñ ko defoon dina gën a baax. lan ngay wax bonne volonté yi lay seetaan ñu bëgg laa dimbali ndax euh, soxla nga ndimbal sérieusement. waaw wax dëgg yàlla soxla naa ndimbal bu baax ci leen talal loxo leen wax ñu gëstu bu baax a baax waaw. nan ko gëstu di sant yàlla nag ci plateforme boobu di 78 601 11 11 muy numéro bi ngeen xam ni gis nañ ni ngeen fay jàppale malade ñu leen koy joxaat ndax Dakar Buzz social. bien vrai que bu dina def vidéo def ci numéro malade bi mais tam am na loo xam tam tàmm ngeen ko di ko gis ci vidéo yi ñu bëgg ngeen gën cee dooleel jàppale nu si parce que mënatuma seeti malade wax ak moom bàyyi ko kon ñu ngi leen ci talal loxo ci 78 611 11 muy numéro bi nga xam ne moom moo jëm ci malade fekk nañ ko nag ci ay problème fekk nañ ko ci ay jafe-jafe fekk nañ ko ci mu yëg ay douleur yoo xam ne foo ko takk weesu na fa parce que 35 ans tëdd tëraay bi di def trois séances dans la semaine moom jarul sax ñu leen metti na. moom ku ko xool xam ni métti na te am nay problème am nga soxna. waaw am soxna waaw. ñaar doom. ak benn doom. kii sa jigéen la. kii sama soxna la. mooy sa soxna. mooy sama soxna waaw. mbaa xam nga ni ku jàmbaare la. xam naa ko bu baax. parce que woo na ma guddi woo na ma bëccëg te ba tey mu nekk nit ku dal. xam naa ko ndax depuis quatre mois ma tëdd ba tey demul feen chaque jour muy guddi muy bëccëg su ma nelawul du nelaw ndax feebar bi day laaj loolu fi mu toll may wax nii su ma bëggee tuur ndox du ma mun tuur ndox aussi guddi boo tëree doo nelaw dangay fat fàtt mais yooyu yëpp da koy bokk ak man di ko dund ak man waaw. mu tudd Fatou. Fatou Diouf la tudd. Fatou euh, bi sa borom kër di ko jàppale di ma woo guddi di ma woo bëccëg tey sa digganteeg sa borom kër tëraay bi yàgg na mais ba tey yaa jàpp nga jàpp. Hmm, maa ngi leen di nuyu di leen ziar. di leen masawu te daay moom yàgg na torop ndax boo ko xoolee depuis tabaski ba léegi mu ngi tëdd feebar hôpital yu bari jaar nañ ci mais nag ba léegi wax dëgg fi yàlla jógagul ndax lépp lu muy def ne dama ko koy defal mënalul boppam lu bari di sàkku tamit ci ñëpp ku ko mën a jàppale tamit nga jàppale ko te yàlla tax ndax xale la te xale bu moom wax dëgg fi yàlla bu tolloo ci fii nga jàppale ko mooy gën ndax metti na metti na ba fu metti yem démb rek lañ jógee cees dem defi jaay jalis. d'accord mais jafe-jafe yi nooy jànkuwanteeg moom sa borom kër tëdd nekk xale comme yow tey ñu bari tey ñeewante la tey nooy dundee feebar sa borom kër. ah na metti na ba fu metti yam ndax xëy na koo toog doon mënal sa bopp di dem ak a ñëw di liggéeyi di dem ak a ñëw nga dem ba feebar mu metti torop nga tëdd loolu mu def dañ ko ko defal. loolu metti na lool. lan ngay wax bonne mën a jàppale tamit nga jàppale ko ba muy jóg ci jàmm ak salaam te feebar bi bañ tee dalal kenn ndax dafa nekk feebar boo xamante ne metti na torop buñ la jàppalewul rek du baax ndax xale la te bëgg na dem liggéey ndax tëddaay dafa metti metti na torop. xale la te bëgg na dem liggéey nañ ko jàppale eh, di wax ni eh, gis nañ numéro bi mooy 78 611 11. Dakar ba ni mu koy defee rek comme fekk na ko ci ay problème démb la jóge jalis Dakar ba dina ko jàppale quarante mille quarante cinq mille jox ko ko muy loo xam ne dina ci mën a jënd ordonnance mbaa mu jënd ci loo xam ne dina ci mën a jënd garab ndax ku tëdd di def ñetti séance dans la semaine buñ la ko waxee su la ko waxul mi ngi ci ay problème Dakar ba nag eh, ñu ngi ñaan lii ñu koy joxoon a barkeel ndax su barkeel yi dina jur leneen ndax kuñ ko mës a jox nu xel dal na ci ba jur na leneen. ndax Dakar Buzz bëggul seeti malaat wax ak moom bàyyi ko mu néew mu bëri dina ci tàbbal ñaqam dana ñaan mu barkeel su barkeelee jur leneen teewul nag numéro dina nekk ci baaru écran bi comme ni ngeen koy defee ku ko waaye bëgg a jàppale boo ko foo woowee di nga ko jot nga bëgg koo dimbali ndax Dakar Buzz moom <coughs> du dajale xaalis li ñëpp li ñuy dimbalee malaat bi day dem direct ci malaat bi lu mu am muy wërsëgam kon ma jox li nga xam ne moom la ko Dakar Buzz di jàppale. Malick Dakar Buzz jàppale na ko quarante cinq mille euh, def ko te yàlla tax te ñaan mu barkeel euh, tey teraay bi yàgg na xale nga <coughs> lu bari war la Dakar Buzz ñëw di la ñaanal ndimbal euh, ba pare jàppale la quarante cinq mille tey lan nga waa Dakar Buzz. dama leen di sant di leen gërëm te di leen di xamal ne li ngeen di def nii wax dëgg yombul lu jafe ngeen di def waxuma dérangement bi ngeen déranger ba ñëw fii rek. mën na leen ci bañ a fekk mais loolu lépp bëgg a dimbali nit moo tax ngeen koy def yal leen yàlla taxaw te jàppale leen ba lépp lu ngeen bëgg ngeen am ci ndam ci barke Seydina Muhammad man de loolu laa leen di ñaanal wax dëgg ay borom baax ngeen. Fatou taxawaayu Dakar Buzz ci sa borom kër. taxawaay bi rafet na rafet na torop ndax ba ma leen wooyee saa ma la wooyee da nga may wuyu sama xel bu baax a baax. xamal ma ne bu soobee la noo mën a def di nga fexe ba ñëw fi nem yoon bi ñëw bi neexul mais jaayante nga ba ñëw fi wax dëgg fi yàlla na leen yàlla fay bal bëgg ak yàlla agal leen fa sëñ Fall. kon lii moo nekkoon seen émission Dakar Buzz Social jox nañ ko mille jàppale ko ko mu jëm ci wàllu ordonnance ak lépp loo xam ne rek mën na ko cee jënd ndax trois séances dans la semaine. Euh, quarante cinq mille du ci dara waaye mu barkeel bu barkeelee dina jur leneen te li ma naan bari la barkeelu ko mais nañu gën a bàyyi xel laatu dialysé yi li ma naan ñi feebar tëdd ci néeg yi ñoo ëpp ñu nekk hôpital te ku yàlla jox fukk de la loolu yow mi yàlla jox alal mbaa mu dénk la kàttan ak man-man na nga xam ni dalaa liggéeyloo ndax àdduna lu yàlla jox ci nit la ko jëlee àdduna lu yàlla jox ci nit la ko jëlee muy am-am. muy wér muy taar lu mu mën a doon rek bu sa ko yaa séddee na nga ciy def lu baax jaamu ci yàlla te xam ni yàgg yàgg yàlla da koy jëlee da ko fiy jële mbaa mu jëlee la fi àdduna nag dara continué wul nanu bàyyi xel ñu néew doole te xam ne ku yàlla jox fukk dalaa séddale loo yàlla ñëpp am jàmm yàlla ko yàlla saafara. yàlla may la wér. ba su ma fiy ñëwaat yow yaa may jëli sax ci kaw tali ba. ñu àndandoo waxtaan te am naa ci yaqin ni di nga jóg bu soobee yàlla ah. feebar la rek lekk nag te bëgg ngay lekk. <laughs> waaw maa ngi lekk moom tey ndekki nga. tey ndekki naa waaw loo ndekkee. Mm, ma pain ak laaj ma defaral. boo demee ndekki woo de est lekk nga ba mu jeex Fatou lekk na mu ndekki ba mu jeex. lekk na kay. est ce que lekk na ko mu jeex. lekk na des tuuti rek. kilo mburu la wala. non non lii bari rek. lii ah, mais. boo ko lekk ba xanaa bëggoo wér doxi soxla. si bëgg na ma wér kay. boo bëggee wér da ngay lekk akara ni mu neexee. moo tax damay forcer rek. waaw dañu war a defaat science Thialis. suba. suba nga war a demaat waaw. yàlla yàlla may la wér. amiin la yàlla taxaw. allahumma amiin ne la yàlla sàmm ba nga jóg dox say soxla ci barke bi. amiin waaye. di nga wér de. incha allah. sooba yàlla di nga wér. feebar ci jaar. wax nañ ma signes yi muy def. des fois daf may arrivé. mais su ma arrivé. bu sama xel demee ci ñi ma waxoon rek. daanaka day dal sama xel te du ma tiit daal. waaw. bul tiit dara da ngay wér. ndax jamono ji ñu toll nii biig laa nelaw à part biig damay toog une semaine boo xam ne nii lay fanaan toog ba di xool ba bés set. di nga wér ko maa ne di nga wér incha allah. incha allah di nga wér bu soobee yàlla suñu boroom di nga wér ànd ak Fatou mi ah. fa ah? Ah, ah, yàlla na ko yàlla mottali te muy lu gën ci moom ci micro bi Fadal mi ngeen tàmm gis la cadre bi nag tey Malick laa àndal. yàlla na ñëpp am jàmm numéro am dina ne ci baaru écran lu ko waay yéene nga yónnee ko fa te xam lu ci waay def yàlla gis na ko te ku lebal yàlla yàlla fay la jërë ngeen jëf.